بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آمين الحديث الرابع والعشرون ñaar fukkeelu xadiis ak ñeent nee na abi darrin jëlee nañ ci saxaabi bu ñuy wax abu dar dàkkantel la jàngoon nañ turam mooy jundub binu junaadata alxifaariyi bokk ci gaño wala git gu ñu wax yonentu ñaanal na leen mm-hmm. yoo xifaar yal leen yàlla baal mm-hmm. abu mm-hmm. ci njëlbeenam daggkatu yoon la woon ci jaahiliyatu waaye mosta jaamu xërëm nag bam déggee ne am na kuy woote jëm ci tawxiid ca makka mm. ca la dem bam gisee yonentu sallallahu alayhi wa sallam ne limay wax dëgg la mm. Hmm. Hmm. Hmm. mu tuub xisaay tuubam xisa gu yéeme la gu siiw la ba mu Makka di wut yonantu ba daj ci Aliyu te booba ñu ngi ci jamonoy nëbbu gi Aliyu defak moom ay pexe ngir kenn bañ leen a gis ba ni mu yeggee ci yonantu sallallahu alayhi wa waaye moom ak fitam wu wa ba mu tuubee it nanguwut koo nëbbu soo mm-hmm. dem ci digg makk wane ko mm-hmm. waa màkka nar koo lor mm-hmm. am ci ñoom ne xanaa xamuleen ne kii ci gir xifaar la bokk te bu ngeen di tukki ak seeni commerce dangeen leen di romb xanaa ragalu leen ñoom ñu dal ci seen kaw ñu daal di ko baax looloo ko musal yonentu sallallahu alayhi wa jox ko ndigal mu dellu ceew nitam ngir woote jëm ci lislaam mm-hmm. genn wàllu aw nitam yëpp topp nañ ko mm-hmm. fala ne ba ni gàddaaye mu ànd ak ñoom gàddaay fekki ko madinatu mm-hmm. ku yéeme la bokk ci ñi njëkk ci lislaam am na ñu ne mooy juróomeel mbaa juróom benneel radiyallahu tabaraka wa anhu an nabiyi mu jëlee ci yonantu sallallahu alayhi wa sallam fii ma yarwi ca la nga xam ne dana solo ko an rabbi jëlee ci boromam azza wa jalla azza tedd na azza e, tedd na wa jalla tam màgg loolu la ñuy tuddee alxadiisu alqudsi hmm. mooy lu yonantu sallallahu alayhi wa sallama hmm. jële ci boromam xadisu hmm. qudsi mooy lépp lu yonantu solo directement jaarul ci jibril hmm, hmm. jaarul ci kenn jibril mooy indi alquran léeg-léeg sax mu ne ko mu wax ko lëf ne ko sa borom la ko wax te du alquran waaye xadisu qudsi buñ ko waxee mooy lu yonantu solo sallallahu alayhi wa sallam ci boromam Mm-hmm. te bokkut ci alquran mm-hmm. mm-hmm. xanaa loolu de mooy sanat gi gën a rëy danañ ci dikk mu ne annahu yàlla tabaraka wa taala qaala wax na mm. yaa ibaadi yéen samay jaam mm. inni naka man seen borom mm. xaramtu xaraamal naa aw zulma tooñ ala nafsi ci sama bopp mm-hmm. wa jaaltu ma def ko mm. baynakum ci seen diggante muharraman muy luñ xaraamal mm. fala tazaalamu mm. fala tatazaalamu lahun mm-hmm. yu boole ñaari taay mm-hmm. fala tazaalamu bu leen tooñante yaa ibaadi yéen samay jaam kullukum képp mm. ci yéen mm. boolun aji réer la mu mm-hmm. illaa man hadaytuhu lu dut ko jubal naa ko mm-hmm. fastahduni sàkku leen njub ci man mm. ahdikum ma jubal leen mm-hmm. yaa ibaadi yéen samay jaam kullukum képp ci yéen jaa'iun aji xiif la mu illaa man ataamtuhu lu dul kok lehal naa ko mm-hmm. fastatcimu nii sàkku leen ci man mm-hmm. utcimkum ma lehal leen mm-hmm. yaa cibaadi yéen samay jaam kullukum képp ci yéen aarin aji raflawu la illaa man lu kasawtuhu hoddu fastaksuuni hut leen man ak sukkum maxooddu leen mm-hmm. yaa ibaadi maanaam istiksa mooy wut koddaay sàkku leen koddaay ci man mm-hmm. ak sukkum ma ko ma hoddu leen mm-hmm. yaa ibaadi yéen samay jaam innakum naka yéen tuxti'uuna da ngeen bàkkaar billayli guddi wannahaari ak bëccëg wa ana ta man axfiru wa ana man axfiru dana baaleek zunuba bàkkaar yi jamian mboole seen fastaxfiru nii jéggalu leen ma axfir lakum ma jéggal leen yaa cibaadi yéen samay jaam innakum naka yéen lan tablugu du ngeen mën durri samak lor fa tadurru nii bon ngeen lor ma walan tablugu du ngeen jot nafci sama njëriñ fa tanfauni ba ngeen may jëriñ mënu mm-hmm. leen maa lor ba may lor mënu mm-hmm. leen maa jëriñ ba may jëriñ mm-hmm. yaa ibaadi yéen samay jaam innakum naka yéen lan tablugu du ngeen jot mooy du ngeen mën rek durri sama lor fa tadurruuni ba ngeen lor ma walan tablugu du ngeen mën nafci sama njëriñ fa tanfauni ba ngeen jëriñ ma yaa ibaadi yéen samay jaam law anna awwalakum hmm. donte woon aji njëkk ci yéen hmm. wa axirakum ak aji mujj ci yéen hmm. wa insakum seeni nit wa jinnakum ak seeni jinne kaanoo fañ nekkoon ala atqa qalbin ci gën jaa ragal ji xol ala atqa qalbi rajulin ci gën jaa ragal ci xolu waay waahidin jey benn minkum ci yéen ma zaada du dolli zalika lolle fii mulki ci sama nguur chey an dara bu fekkoon ne yéen ñëpp da a baax ba mel ni yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa mi nga xam ne moo gën a ragal xol ci yéen baax googu ak jub googu bu leen foog ne dafa may jëriñ de jëriñun ma tus yaa ibaadi yéen samay jaam law anna awwalakum donte woon aji njëkk ci yéen hmm. wa axirakum ak aji mujj ci hmm. seeni nit hmm. wa jinnakum seen jinne kaanu fañ nekkoon ala atqa qalbin ala rajulin ci gën jaar ragal yàlla ci gën jaar minkum ci yéen zaada du dolli dhalika loolu fi mulki ci sama nguur shay'an tus mm-hmm. yaa ibaadi mm. yéen samay jaam mm. law anna awwalakum mm. su doon way njëkk ci yéen wala aji njëkk ci yéen wa axirakum ak aji mujj ci yéen wa insakum ak seeni nit wa jinnakum ak seen jinne kaanu fañ nekkoon ala afjari qalbi rajulin ci gën jaa kàccoor ci xoluwaay mm. waahidin bay benn minkum ci yéen mm. maa naqasa du wàññi dalika lolle min mulki ci sama nguur shay'an tus yéen ñëpp su ngeen bonoon ba mel ni iblis mm. du tax mu wàññi ma dara de yaa ibaadi yéen samay jaam law anna awwalakum su doon aji njëkk ci yéen wa axirakum ak aji mujj ci yéen wa insakum ak seeni nit hmm. wa jinnakum ak seeni jinne hmm. qaamu fañ taxaw hmm. ah, fii saidin ci pakk waaxidin bay benn fa sa'aluni ñu laaj ma fa aataytu ma jox kulla waaxidin képp kenn misalatahu laajam maa naqasa du wàññi dalika loolu le mi maa indi ci li ne ci man illa kama yanqusu lu dul lu mel ni dana wàññi mm. lu dul lu mel ni la dana wàññi mm. almixiyatu mm. pusa ida udxila ndem dugaleef na ko albahra géej mm-hmm. yenn ñépp su ngeen tasee woon ci pàkk <coughs> milliards yi ma bind yépp laa wax nag mm-hmm. ya njëkk ak ya mujj ngeen dajee yéen ñépp ci benn barab ku nekk di lim lam soxla yépp soxlaam lu muy bëri bëri hmm. ak yéen li ngeen di bëri bëri hmm. ma jox ku nekk la ma laaj hmm. du tax mu wàññi ci li ma xamee lu dul lu mel ni li pusa di wàññi ci géej suñ ko ca sampee génnee ko ba sampoon pusa génnee ko ci géej génnee ko boo xoolee la takk ca pusa ba mooy la ma leen jox la des ca géej ga mooy li ma dese mu baalaxa la sax ak ah, daf def mu baalaxa mm-hmm. waaye dara du wàññeeku sax ci la ma xamee mm-hmm. waaye misaal mi mooy tax ñu mën a dégg lim bëgg a wax mm-hmm. yaa ibaadi yéen samay jaam innama hiya duhut lu dut amaalukum seeni jëf innama adaatu xasr la ah innama hiya duhut lu dut amaalukum seeni jëf innama hiya xamal ne yooyu ngeen gis de amaalukum seen jëf la innama hiya xamal ne ñoom mm-hmm. amalukum seeni jëf lañ mm-hmm. uxsiha dana takk danaa takk ko mm-hmm. lakum ñeel leen thumma uwaffikum topp ma matalal leen iyaaha ñoom faman wajada ku fekk na mu xayran hiw falyahmadillaha na sant yàlla waman wajada ku fekk gayra dhalika lu dut loolu le falaa yaluuman na bu mu yedd mukk noonu tawkiit ga lay firi mm-hmm. mukk mm-hmm. falaa yaluuman na bu mu xalaata yedd sax mm-hmm. illaa nafsahu ndere boppam rawaahu xadis ji soloo na ko muslimun imaam muslim ci saxiixam xadis ju ama am solo la xam nga alquran li ko wuute léeg xadisu qudsi alquran waxi yàlla la joo xam ne yonentu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama sañu caa togg mm-hmm. mënul ko riwaaye ci maana mm-hmm. baat ba mm-hmm. wàcci jaaree ci jibril dikk ci moom lafdun munazzalun ala muhammadi baat boobu moom la yonentu sallallahu alayhi wa sallam di jottale balligh ma unzila ilayka min rabbik bu dee xadiisu qudsi nag hmm. borom xam-xam wuute nañ ci ndax baat ba noonu la koy nettale wala sañ na ko riwaaya ci maana hmm. alquran hmm. jàng ga dañ cey jaamu yàlla wuteeg xadiisu qudsi alquran mën nañ ko jullee wuteeg xadiisu qudsi alquran yàllaa ko protégé dara mënu caa rax mm-hmm. wuteeg xadiisu qudsi mm-hmm. léeg-léeg nga dégg ñu ne xadiis ji xadiisu qudsi la te fekk wér na mm-hmm. xadiis ji léeg-léeg ñu ne xadiis ji xadiisu qudsi la te wérut alquran nag moom lépp wér dafa wàcc ci ñun ci tawaatur am na leen loolu danañ ko askane alxuraan fekk ka ko jàng daf ko jàng rek ngir firee ko hmm. alxuraan juñ xam waaye sax du alxuraan hmm. Hmm. xadiisu qudsi mooy loo xam ne dara newut ci digganteem ak diggante yonantu bi diggante yàlla ak yonantu dara doxut ca kenn doxut ca bokkul alquran yi nga xam ne ruuxul qudsi ci dox qul nazalahu ruuxul qudusi min rabbika mm-hmm. ak nazala bihi nazala bihi ruuxul aminu ala qalbika li takuna min almundirina bi lisaanin arabiyin mubin mm-hmm. waaye ñaar yëpp nag waxi yàlla mm-hmm. waaye yiñ ci wax rek ñooy seen wuutee te alquran yàlla moo ne fa koy wëttu xadiisu qudsi moom yàlla digéewul ci loolu am na ci saxiix am na ci xasan mm. alquran nag inna nahnu nazzalna dikra mm. wa inna lahu la xaafidun mm. alquran lettre boo ci jàng ñu fay la ci fukki xasanaat wuuteeg xadiisul qudsi alquran niñ ko waxee kenn du ko moom la ñuy jullee xadiisul qudsi yi duñ ko jullee mm-hmm. alquran kenn du ko laal te laabut mm-hmm. wuuteeg xadiisul qudsi mm-hmm. alquran aji janaba du ko jàng wuuteeg xadisu qudsi mm. aji janaaba du ko jàng mm. ci li gën a mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. nag bu ne yaa ibaadi mm. yaa gi yaaw munaadaa la mu ne ibaadi daafal ñu ci boppam waykat woo mu ne li sedd sama xol ak lii tax bu ma ko déggee bëgg naaw hmm. li li nga xam ne su ma ko déggee bëgg naaw ngir bëgg hmm. mooy dugg gi ma dugg ci bu yàlla ne yaa ibaad yi hmm. boole ma ci jaamam yi ngàllo gi nga xam ne ngàllo nañ ko ñeel yàlla nee na ngàllo googu mooy li ma gën a neex bam ne yaa ibaad yi wooy nañu tur wi gën a màgg mm-hmm. ndax wax nañ ne yonentu sallallahu alayhi wa sallam tur yi ko yàlla jox yëpp mm-hmm. abdoo ci gën a rëy mm-hmm. bi mu ko yónnee wa innahu la maqaama abdullahi abdu la ko tuddee bi ko joxee alquran tabaraka alladi nazzala alfurqaan ala abdihi abdu la ko tuddee bi mu ko rañaanee subhaana alladi asra bi abdihi abdu la ko tuddee bi mu ko waxyoo ca miraaj ba mm-hmm. loo xam ne kenn xamut lan la mm-hmm. gannaaw yàllaa ko yonentam fa awxaa ilaa abdihi mm-hmm. ma awxaa abdu la ko tuddee kon abdu mooy maqaama mi gën a màgg ci maqaama mu jàmbi di am ci diggante ma boromam mu woowee ñu tur ngir soppuñu waaye mu wooñu ba pare soog a wax li muy wax ngir ñu déglu lim ñu njëkk a tere mooy tooñ hmm. mu ne xaraamal na ko ci boppam hmm. ñu xamee ca ne yàlla mën naa seet lu ko neex mu xaraamal ko ci boppam hmm. ndax dara xaraamut ci moom mën naa seet lu ko neex mu waral ko ci boppam ndax dara waru ko kataba rabbukum ala nafsihi rahmata fa ko neex mu ne wa jacaltuhu mu muharraman mm. ma def ko nag muy lu xaraam seen diggante mm-hmm. kon nag bu leen tooñante mm-hmm. yaa cibaadi mm. kullukum dallun mm-hmm. ñëpp réer lu dul koo xam ne maa ko jubal kon nag bu di wut njub ko ci man yéen ñëpp a xiif mm. lu dul kook layal naa ko mm-hmm. bu kenn ci yéen am dara mm. ba foog ne moo ko xamal boppam mm-hmm. kenn indiwut fi dara mm-hmm. afaraytum ma tumnuun mm. antum taxluquunahu am naxnu lxaaliquun ak afaraytum ma taxrusuun antum tazrauunahu am naxnu zaaricuun afaraytum almaa alladi tashrabuun antum anzaltumuhu min almuzni am nahnu almunzilun lépp yàlla la subhanahu wa taala wax naa ne xadis la ju bëri njëriñ man naa am suñ doon lim njëriñ li duñ fi jóg waaye ñu tënk ko riwaaye yonentu sallallahu alayhi wa sallam jëlee ci boromam mooy sanat gi gën a màgg ci mm-hmm. sanat yi mm-hmm. sanat mm. dayoo mooy mu yegg ci yàlla subhaanahu wa taala mm-hmm. su yeggee ci yàlla mooy xadiisu qudsi su fekkee ne xadiis ji ci yonantu sallallahu alayhi wa sallam mm. layam mm. danañu wax ne xadiis marfuu la su fekkee dafa yem ci saxaaba yi ñu ne xadis mawquuf la mm-hmm. su fekkee ne ci taabiina yi la ñu ne xadis maqtu la mm-hmm. maanaa xadis maqtu la mooy xadis juñ dog la mm-hmm. su fekkee taabii yu nee na yonantu nee na sallallahu alayhi wa sallam te tuddut saxaabi yi bi mu ko jëlee kon xadis ja dog na hmm? bu fekkee nag ci saxaabi yi lañ ko jëlee waaye saxaabi bi tuddul ne ci yonantu la ko jëlee ñu ne xadis ji mawquuf la mm. dañ koy taxawal ci euh, saxaabi bi mm-hmm. Hmm? Mm-hmm. Mm-hmm. kon sanad bi gën a rëy mooy sanad yoo xam ne yegg na ci yàlla te mooy xadisu qudsi gannaaw alquranul karim gannaaw alquranul karim mm. ñaareel bi ñu ne kon yàlla sañ na xaraamal ci moom lu ko neex sañ a waral ci moom li ko neex mm-hmm. qul liman ma fi samawati wal ard mm-hmm. qul lillah mm-hmm. kataba ala nafsihi rahma inna rahmati sabaqat ghadabi ca xadisu qudsi hmm? waaye kenn nag xamul xaq ci moom ma lil ibadi alayhi xaqun waajibun huwa awjaba al ajra al azima shaani na ko imaam ibnul qayim rahmatullah alayhi waxee ca nuunu yàmba ñu jàngee ci xadis ji ne yàlla dana xaskanee nafsu jëmee ci boppam waaye nag bu ko kenn déggee ne nafsu la comme suñ nafsu yi wa yuxadirukum allahu nafsahu wax na ko seydina isa bi ko yàlla waxee ne ko ndax yaa waxoon jaam yi ñu jaamu la wëllis hmm. ma ko waxuma ko hmm. ca yowmal qiyaamati hmm. ca biiru wax ja ko wax ne ko taalamu ma fi nafsi wala alamu ma fi nafsika kon nag bu ne xaraamal naa zulmu ci sama nafsu mu ci jublu ci zaatum rek subhanahu wa taala dañu jege ci xadis ji tatuk xaraamuk tooñ mm-hmm. wa jaaltu baynakum muharraman mm-hmm. su ci yemoon rek mu doy waaye mu yokk ca fala tazaalamu mm-hmm. ay bu kenn ci yéen tooñ kenn ci yéen ñu xam ne kon tooñ dana nekk fekk sa bopp nga tooñ tooñ dana nekk fekk keneen nga tooñ yàlla nee na wa ma zalamahum allahu walakin kaanu anfusahum yadlimun mm-hmm. walakin zalamu anfusahum mm-hmm. tooñ boobu sa bopp nga tooñ mm-hmm. da tooñ fekk keneen nga tooñ nan ngay tooñee keneen mooy tere ko lu lu moom mbaa xen ko luñ ko warta xen tere ko lu lu moom mën naa nekk ci wàllu bor nit ki nga yoreel ko ba pare mm. am loo ko fayee mm. bañ koo fay mm-hmm. yonentu ne matlul ganiya zulmu mm-hmm. yéex a fayu ki am mm-hmm. tooñ la walla nga yen ko lu warta xenu mm. nga tuumaal ko ne fa la xamel te xamelut la loolu tooñ la ak yeneen ak yeneen fala tazaalamu tooñ nag foo ko gisee rek ak wàññeeku lay firi yàlla sax tudd na baatu tooñ ci alxuraan mm-hmm. kiltal jannatayni aata tukulaha mm-hmm. aata tukulaha walam tazlim mm-hmm. ay lam tanqus minhu shay'an walam tazlim minhu shay'an fu zulmu amee rek wàññeeku wàññeeku am na soo wàññee sa xaqi bopp tooñ nga soo wàññee xaqi jàmbur tooñ nga soo ne soo jàppee ne xaq yàlla nga wàññi sa xaqi bopp rek nga wàññi mm-hmm. Mm-hmm. ndax yàlla wax na la ne mm-hmm. jaamu gi mun koo jëriñ ñàkk jaamu gi du ko lor subhanahu wa taala danañ jàngee ci hadis jiit ne hidaayatu yàlla rek a ko xame amul kenn ku ko xam ñëpp réer lu dul ku yàlla jubal ñu ne ah loolu luñ koy déggee te yonentu ne ku nekk ci fitra nga juddu hmm. da ngaa juddu baax hmm. kon nan la sama borom mën a waxee fii ne yéen ñëpp da naa a réer lu dul hmm. koo xam ne jubal naa ko ñu ne waaw yonentu ba mu waxee loolu it fa ci teg ne fa abba waaw yu hawidaani aw yu nasiraani aw yu majjisaani kon environnement moo la soppi ba nga matee mu kàlla fekk réer nga bu la yàlla jubalut doo jub wala sax nekk ci fitra salima boobu mm. taxut nga xam li nga war a xam mm. lu dul yàlla wax la ni nga ko war a jaamoo mm. nga jaamu ko ndax yàlla wax na yonentu wa wajadaka bollan fahda mm-hmm. xam ne ne yonentu mosta bàkkaar mm-hmm. waaye bu ko yàlla bu ko yàlla wàccewul woon ci moom sharia dana nekk di xalaat mm-hmm. xam di xalaat waaye du mos a xam ni yàlla bëggee pour mu jaamoo ko ni ak ni yàlla bëggee jaam ñi jaamoo mm-hmm. jaamoo ko ba mu leen ci woo mm-hmm. subhanahu wa taala mm-hmm. du noonu kullukum dallun illa man hadaytuhu lu dul koo xam ne maa ko gindi ñu xamee ci it ne xam-xam am na solo ndax ku amul xam-xam du mën a gindeeku kon nag lu ne képp ci yéen ku la dul ku ma jubal nañuy wutee ak fastahdoo ni na ngeen wut njub ci man hmm. nañuy wutee njub ci moom bokk na ca hmm. wut xam-xam hmm. imaam ahmad nee na dara melut ni sàkku xam-xam ñeel koo xam ne xéeneem na ñeel koo xam ne xéeneem wér na rawatina ci jamono joo xam ne nag ñëppay wax te ñi xam bariwuñ yu réeral la dafa yomb lool Mm-hmm. waaye hidaayatu it mm-hmm. yàlla rek a ko yore mm-hmm. fastahduni ahdikum yonentu sallallahu alayhi wa sallam des koo wooteloo waaye hidaayatu newut ci loxoom iblis wàcci di woote jëmee ci riwaayatu waaye newut ci loxoom loolu nag nuñ koy déggee te yàlla wax yonentu ne ko wa innaka la tahdi ila sirati mustaqim mm-hmm. ñu ne yaa ngi koy déggee ci innaka la tahdi man ahbabta mm-hmm. xam nga boo xoolee ñaari baat yi boo déggul fa ngay foog ne fañ safaanoo mm-hmm. waaye hidaaya dafa am hidaayatu dilaala ak hidaayatu tawfiq hidaayatu dilaala mooy yoon waa ngi nii loolu yonentu mën na ko sallallahu alayhi wa sallam waaye hidaayatu yoon wim la wan nag nga nangu ca jaar tawfiq googu yàlla rek ko mën a joxe mm-hmm, mm-hmm. moo tax mu ne ko innaka laa tahdi man ahbabta mm-hmm. walakin allaha yahdi man yasha ba wa innaka yow muhammad la tahdi ila sirati mustaqim sallallahu wa sallam yaay jubale jëm ci yoon hmm? kon eh, hidayatu dilala mën nga koo wut ci nit diw jàngal ma diw xamal ma diw wan ma yoon diw ubbee ma diw nàngam ma mu wax la mm. waaye tawfiix jay tax nag nga nangu lañ la wax ci mm. dëgg mm. jaar ci yoon wa kooku ci loxo yàlla nekk ihdina siraat al mustaqim wala yëpp sax ci moom la nekk mm-hmm. Mm-hmm. subhaanahu mm-hmm. wa taala muy hidayatu dilala ak hidayatul mauna wala hidayatul mauna mooy hidayatu tawfiq hmm? jàngee nañ ci xadis ji it ne jaam ñëpp a xiif mm-hmm. kenn amut mm-hmm. ndax ci cosaan mm-hmm. kenn indiwu fi looy lekk kenn indiwu fi looy naan yàlla ne afara aytum ma taxrusuun a antum tazrauunahu am naxnu zaariuun law nashaau la jacalnaahu xutaaman fa daltum tafakkahuun su ma neexoon sax bu ngeen bayee ba pare ma def ko mu poñax lépp yàqu waaye man maa leen may ngeen mën a bay mm. maa leen joxit li ngeen bay mm-hmm. maa leen may ngeen am ñam mm. kon man rekk maa mën a lele mm-hmm. wut leen ci man le mm-hmm. Mm? kon fastat'amuni ut'imkum wut leen ci man ñam nga déggee ci yow mi am ne sama borom moo tax ma am waaye du samay pexey bopp ni nga ciy déggee yow mi jub ne sama borom moo tax ma jub waaye du samay pexe bopp mm-hmm. moo tax toujours ñu naan ihdina siraatal mustaqim mm-hmm. ngir boo ko ñaanutoon nga xëy rek jub mën ngaa foog ne yaa jubal sa bopp mm-hmm. waaye loolu sax ci la dëng yam looloo tax ñuy ñaan yàlla may ñu ngir bu ñu amee te ñaanuñu mën naa am ñu foog ne ñoo may suñ bopp ni nga xam ne xaaru na xorooxoon na noonu Hmm. inna qaaruna kaana min qawmi muusa fa bagiya alayhim hmm. wa aataynaahu min alkunuuzi maa inna mafatixahu latanuu'u bilcusbati hmm. ulil quwwa id qaala lahu qawmuhu laa tafrax inna allaha laa yuxibbu lfarixiin wabtagi fiimaa aateeka allahu daara alaaxirata wala tansa nasiibaka min addunya wa axsin kamaa axsana allahu ilayk wala tabgi lfasaada fi lardi inna allaha laa yuxibbu almufsidiin ndénkaane yu kawe yooyu ñu dénk ko ko mm. lu mu ca teg mm. qaala innama utituhu ala ilmin indi waaw mm. ah, lii sama ñaq waaw mm-hmm. ah. mm-hmm. nit ki lu am ci xam-xam eh, ak lu am ci diplôme mu tax mu foog ne moo am liggéey moo tax mu am liggéey bi muy mm-hmm. moo tax mu am wërsëg bi mu am ndax am na koo xam ne moo la ëpp njàng fuuf te li nga am na koo xam ne yaa ko raw fuuf te li nga te li ma am ko loo liggéey liggéey am na ku la gën a sonn fuuf mhm. te xamul li nga xam mhm. am na koo gën a sonn fuuf te moo la ëppale mhm. kon li Cheikh al Xalifa Aboubacar si daan wax ne sabab lu leen te bu leen sukkandikoo yëngu ya leen bu leen sukkandikoo yëngu waaw dañuy sabab lu ba mel ni sabab yi rek a ñuy jox waaye wakilu ci yàlla ngir xam guñ xam ne moom rek a mën a joxe sabab yi mënuñ dara waaye yéen ñëpp xiif nangeen ma euh, na ngeen wut ak lexal ci man hmm. ma lexal leen hmm. loolu mu ngi ñi ciy sante ñu liggéey hmm, mu ngi ñi ciy sante ñu liggéey istadimo nii danañ ci déggee dem leen liggéey nag daam bi du toog rek di ñaan waaye fa koy booleeg sabab fa ida qudiyati salaatu fantashiru fi l ardi wabtagu min fadlillahi wadkuru llaha kathiran laallakum tuflihun Hmm? bu julli gi jeexee hmm. mu ne tasaaroo leen ci suuf si hmm. wut ngëneelu yàlla sàkkoo ngëneelam te di ko tudd tudd gu bëri ndax ngeen texe huwa alladi jaala lakum al arda dalulan moo leen tàggatal suuf kon nag famshuu fi manaakibihaa wa kuluu min rizqihi wa ilayhi nushuur ñu xam ne kon wuti wërsëg war na ñun ñëpp ñoo raflewu lu dul ku yàlla hodd moo xam hodd yëg la moo xam xodd ak maanaa la mm-hmm. xodd ak yëpp yëg la keneen ndiwaale wu fi yére mm-hmm. lu ñu am moom la ci yére mm-hmm. xodd ak maanaa la mooy xamuñ dara luñ xam yàlla la mënuñ dara luñ mën yàlla la mënuñoo jub ku ci jub yàlla la subhanahu wa taala xadis ji mu ngi wane tedda kara maanaam teraangaay yàlla hmm. ak sopp gim sopp ak sonnee gimu mu sonnee bu hmm. fekkee mën nañoo wax baat bi hmm. yetu inaayatu danañ ko fi sonnee maanaam waaye fonk gim ñu fonk moom ba tax mu wan ñu ñun ñooy ñan ci rafle ñun ñooy ñan ci xiif ñun ñooy ñan ci réer ñun ñooy ñan ci ñàkk ba pare gaaral ñu lu ñu war a def ngir génn ca loole ngir ñàkk gi ñàkk ñu génn ca am hmm. xiif gi ñu xiif ñu génn ca lekk hmm. réer gi ñu réer ñu génn ca jub hmm. sori gi ñu ko sori ñu génn ca jege ko xamal gi ñu xamal suñ mbir ba pare wax ñu ni ñuy def ba jógee ca loolu wan na kara wane na karamam ci ñun wa laqad karram naa bani adam xadis ji it mi ngi wane ne doomu aadama ku bari ñaawteef la te jaaduwut doomu aadama ku bari ñaaw téef la te jaaduwul mm. wa xamalaha insaanu mm. innahu kaana zaluman jahula mm-hmm. ndax bu ne yéen a ngi may moy mm. bu dégg bëccëg mu ñu yedd mm-hmm. ndax guddi mooy jamono joo xam ne ci la jaam bi war a wéet yàlla ba li muy def bët du ca tege ci mbaax mm-hmm. mooy jamono joo xam ne ci la jaam bi di sellalee ñeel boromam kenn gisut ko yàlla rek koy gis mu war caa jëfal yàlla loo xam ne ngistal du ca am mm-hmm. fay sell ñiyal ko mm-hmm. au lieu muy def loolu nag muy wéer di def leneen lu neexut yàlla mm. bu loolu yàlla nga koy wan ci hadis ne ko doy na gàcc mm-hmm. bëccëg gi nga xam ne ñëpp a lay gis mm. képp ku am xel mm. war naa jomb di def lu ñaaw ci kanam nit ñi kon nag bu fekkee ne doomu aadama yàlla nee na ko yaa ngi mooy guddeeg bëccëg xas na ko de loolu mooy jaaduwut mm-hmm. ànd ak loolu yëpp nag mm-hmm. mi ngi koy wane yërmandeem ju bari mm-hmm. ne ko man maay jéggale bakka ànd loolu yëpp man maay jéggale bàkkaar kon nag fastaghfiruni aghfir lakum na ngeen wut njéggal ci man ma baal leen nan la ñuy wutee njéggal ci yàlla ay anam la benn ci anam ya mooy ñaan mu jéggal ñu allahumma aghfir li ñu ne astaghfirullah ñaareel ba hmm. mooy jëf ju baax hmm. ndax jëf yu baax yi hmm. dañuy far bàkkaar yi innal xasanaati ah yudhibna sayyiaati yonentu sallallahu alayhi wax na ne man nee na subhaan man qaala subhaanallahi wa bihamdihi fi lyowmi miata mirratin gufirat xataayaahu wa in kaanat mithla zabadil bahr nee na ku wax subhaanallahi wa bihamdihi ci bés bi téeméeri yoon sa bàkkaar nuñ mënta toll yàlla dana la ko b Hmm? wax na ne julli juróom yi hmm. ak juma ak aju ajuma ak ajuma hmm. ak weeru koor ak weeru koor yooyu le dañuy kafaara bakkaar yi ci seen diggante fekk jàmm baa ngi teet bakkaar yu mag yi yu ne kon bakkaar yi ay xaaj lañ am na xaaj boo xam ne fokk boroom tuub pour yàlla baal ko ko ñëpp daje nañ ci mooy kufru mooy weddi yàlla ak xaaj boo xam ne jaam bi bu jëfee ay jëf yu yiw rek mm-hmm. yàlla baal ko mm-hmm. mooy bàkkaar yu ndaw yi mm-hmm. ak xaaj boo xam ne ñii nee nañu foog nga tuub ñii ne déedéet boo jëfee jëf yu baax yit yàlla fa la koy fa la fa baal xaaj booba ñu ne mooy bàkkaar yu mag yi waaye li gën a lëng mooy fokk borom tuub leen hmm? xadiis ji ngi wane ne yàlla tabaraka wa taala Mm-hmm. nguuram dafa mët te mm-hmm. dafa doylu walis jaamam yi mm-hmm. moo tax mu ne innakum lan tabluqoo durri mënu leen maa lor walan tabluqoo nafi mënu leen maa jëriñ waaw ak lor du xàgg ci moom su njëriñ mënta xàgg ci moom lu tax dafa mët ci jëmm mët ci melo mët ci tur mat ci jëf mat ci am am kii nguuram subhanahu wa taala Hmm? Hmm. Hmm. kon nag bàkkaar yi ñuy euh, tuub gi sàkku gi ñuy sàkku tuub gi du pour moom pour ñun la jëf yu baax yi ñuy jëf du pour moom pour ñun la dana jàngee ci xadis ji ne barabu ragal yàlla ak barabu kàccoor mooy xol ndax wax ji mu wax ne ala atqa qalbi rajulin waxidin minkum mhm. ak ala afjari qalbi rajulin waxidin mhm. minkum mhm. li koy seede mooy li yonentu wax ne ala wa inna fi ljasadi mudga ida saluxat saluxa aljasadu kulluhu wa ida fasadat fasada aljasadu kulluhu am na eh, ab eh, lumb bu nekk wala lanc hmm. bu nekk ci eh, wala organe hmm. bu nekk ci yaram woo hmm. xam ne su baaxee yaram yëpp baax su bonee yaram yëpp bon su yàqoo yaram yëpp yàqu mooy xol kon ñu ngi xamee ne kon ragal yàlla ci xol la nekk yonentu sallallahu alayhi wasallam naa wax ne attaqwa haahuna attaqwa haahuna attaqwa haahuna di junji dënnam ba ñetti yoon sallallahu alayhi wa wa sahbihi wa sallam mm-hmm. yàlla kon nguuram mët na mm-hmm. koomam ak doyloom walis ñu mët na mm-hmm. moo tax mu ne yaa ibaadi law anna insakum law anna awalakum wa axirakum wa insakum wa jinnakum qaamu fi saidin waxidin ba jumla ja jeex yéen ñëpp bu ngeen dajee woon seen way njëkk ak way mujj seen nit ak seen jinne ci benn barab di ma ñaan ma jox ku nekk soxlaam lu tax li ma yore wàññeeku mm-hmm. yaa ayuha annaasu antumul fuqaraau ila allahi mm-hmm. wallahu huwa alganiyu alhamid mm-hmm. ñu jàngee ci wax ji it ne mm. daje mm. dafay tax suñ ñaan gaaw nangu bu mbooloo dajee ci jàkka mm. mbaa ci bërëb di ñaan yàlla dana tax ñaan nga gën a gaaw a nangu moo tax mu ne yéen ñëpp bu ngeen dajee woon di ma ñaan ma jox ku nekk la mu bëgg wàññi sama nguur gi dara du wàññi ci li ma yore dara mm-hmm. Mm-hmm. Hmm? Mm-hmm. moo tax daje di ko def ci jàkka yi moo xam julli mbooloo la moo xam julli jumaa la moo xam julli iid la walla sax dajee pour baaw naan nga gis ndox ñàkk ñu dajee di ñaan yàlla mu indi ndox mbaa jant bi muuru wala weer yu ñu dajee di ñaan yàlla uh, yërmande danañ jàngee ci xadis ji daganuk mubaalaga mooy euh, wax dara nga hmm. jotal ca loo xam ne hmm. euh, danga ko koo jotalee noonu hmm. euh, ngir ki ngay waxal mën a dégg li ngay wax xam nga yàlla wax na ne ñi weddi laa tufattaxu lahum abwaabu samaai duñ leen ubbil bunti asamaan wala yadxuluuna aljannata duñ dugg aljanna xataa yalijal jamalu fi sammil xiyaat feeg gëlëm duggut ci bën bënu pusa xam nga ne gëlëm xajut ci mm-hmm. bën bënu pusa bu ca mën a dugg mm-hmm. waaye bu ko waxee noonu mm-hmm. dana tax nga dégg ko loolay mu baalawa danañ ko daganal ci wax ngir ka ngay waxal mën a dégg li ngay wax moo tax mu ne yéen ñépp bu fekkoon ne daje ngeen ci benn pàkk ku nekk ci yéen ñaan lim bëgg ma jox ko ko du wàññi ci li ne ci man lu dul li pusa di wàññi ci géej buñ ko ca sampee génnee ko mubaalaxa la mhm. Hmm? Mhm. ñu jàngee ci xadis ji it ne mhm. amul dara lu raw yàlla ci suñuy jëf lépp mi ngi koy gis waaye lépp it ngi ñu koy takkal uxsiha lakum bu njëkk ah, na arab yi dañ daan compter jàmburaay di jël xeer di teg di xeer di teg loolu moo tax mu ñu xasaa boobu ci la baatu uxsi ak ixsa u jógee muy compter ak takk mu ne dama leen ko takkal rek lu ngeen fekkee rek yéen la mm-hmm. Hmm? Mm-hmm. fa man yaamal mitqaala daratin xayran mm. yara mm-hmm. wa man yaamal mitqaala daratin charran mm. yara ah. lu lëf tuuti tuuti ci yiw ku ko mm. jëf ci fekk ci man waaye lum tuuti tuuti ci musiba ko jëf koy fekk yàlla du tooñ kenn dama leen mu ne daf ñuy dencal yi rek yëpp summa iyaaha Hmm? Mm-hmm. ñu jàngee ci xadis ji ne luñ baax le rek hmm. tawfiqu yàlla la nañ ko ca sant mm-hmm. ndax nee na ku fekk yiw hmm. fal yahmadillah fa man wajada xayran fal yahmadillah du loolu la wax mm-hmm. Oh. kon li nga li ngay li nga bëgg a tiitaroo foog ne yow la ñun ñuy xamal xaat ne du ñun tawfiqam la bu ñu yàlla tawfiqul woon duñ mën a def dara kon lu ñu def rek Euh, tawfiqam la mm-hmm. moo tax mu ne képp koo xam ne fekk ngay yiw mm. na sant yàlla mm-hmm. na sant yàlla ngir ñaar mm. mooy yàlla tawfiqal na ma mm. ba ma mën a def yiw mm-hmm. waaye nangul na ma ko ba di ma ci yool sax kon fa mën man wajada xayran ku fekk ku fa fekk yiw falyahmadillah na sant yàlla mi ko tawfiqal ba mën a def yiw ba pare nangul ko ko ba pare yoolal yool ko ca du noonu waaw fa man wajada xayran fa li ahmadillah mm-hmm. hmm? mm-hmm. mm-hmm. mu ne fa fekk lu dul lool nag yàlla ñuy wan jàngal teggin mënoon naa wax ne ku fa fekk musiba waaye wa man wajada xayra dalika nga xam ne kon yàlla moom amul lu dul musiba ku ku def leneen yow yaa ko def boo ko fa fekkee nga xam ne lii yow la mu ne falaa yaluman na mënoon naa wax falaa yalum Mm-hmm. bu mu yedd mm-hmm. illaa nafsahu waaye mu ne falaa yalu man mm-hmm. waxut falaa yalu man du noon gu woyof sax waaye falaa man na noon gu diis la muy tawkiit ne lépp loo fa fekk ci leneen loo xam ne duhut yow mm. xamal ne sa jëf la des la ko dencaloon rek mm. képp ku bàyyi yiw mm. def lu yiw bu yedd ku boppam ndax ku nekk la nga góob la nga ji rek hmm. moom ngay góob hmm, hmm, yal nañu yàlla dimbale amiin yaa rabbi bañ ji yiw ñu sañ góob ko te mu fulal ñu ko fulal ñu suñu zaahir ak suñu baatin hada sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi xaw naa gudd